On démarre avec les béliers. On démarre avec les béliers Pape Cheikh tey di di jeudi 28 avril 2016 bélier ñi ngi leen di wax ne euh, ñoom tey su fekkee ne jox nañ seen bopp les moyens de dinañ mën a euh, jot but yi nga xamante ne moom la ñu fixé wu woon plus aisément euh, seen train de vie nag dinañ mën a gis ne su boobaa dina améliorer wu au fil des jours nañu wóolu seen bopp et surtout nañu wóolu la vie. taureau yi ñoom journée bu tay bi mën na nekk journée bu positive su fekkee ne génn nañ de sentiers battus wala tout simplement ñu génn seen kër quotidien bi mën na nekk une aventure il suffit juste d'y croire Gémeaux yi ñoom tey jii ñi ngi préférer isoler wu pour mieux rebondir ensuite waaye su fekkee ne dañuy continuer à penser sans arrêt à l'argent loolu dina leen euh, taxa taxaw benn place def di sur place seen dara dootul avancer kon nañ ci bàyyi xel cancer yi ñoom moom euh, seeni ay mbébét dafa mel ni mi ngi am ndànk-ndànk waaye ñu ngi inquiété wu ci seen euh, avis wu conjoint ci lim leen nar a wax euh, mun nañ ko déglu naka tenir compte ci avis waaye nañu rester intègre sur l'essentiel ñëw si Lions yi nga xamante ne ñoom instant bi ñi ngi jël seen atu yëpp dugal ko si seen i ay objectif ci li ñu bëgg looloo tax nag ñi ngi liggéey liggéey bu méttee métti pour jot loolu lépp waaye nañu def attention à leur santé vierge yi ñoom su fekkee ne artiste lañu tey jii journée la boo xamante ne journée bu propice à la création et au spectacle lay doon su fekkee ne nag dañoo am doom nañ leen euh, yóbbu dans des lieux dépaysants lu ci mel ni parc d'attraction euh, wala zoo euh, loolu dina leen permettre ñu gën a mën a raffermir lien li ñu am ak seeni ay doom te loolu dina nekk loo xamante ne dina neex xale yooyu balance yi ñu ngi leen koy wax démb waxaat nañ leen ko tey euh, atmosphère bi am seen kër atmosphère bu tendue lool la waaye nag les sujets qui fâchent il serait euh, préférable ko ñu aborder ko même bu fekkee ne nag c'est juste pour éviter les malentendus ñu jéem a affronter situation yooyu Scorpion yi ñoom seen partenaire seen i ay collaborateur ñi ngi leen di solliciter bu baax a baax tey jii euh, déplacement yi ñu nar a effectuer nag euh, dina bëree dinañ passer ay coup de fil yónnee ay mail tey jii daal du ñu am benn jot pour ñoom waaye buñ ca jógee rek nañu xalaata noppalu en fin de journée sagittaire yi ñoom ñu ngi euh, def un peu de souci am ay souci euh, ci pour seen porte-monnaie loolu nekk na lu leen di euh, attristé nekk na lu leen di mettre de mauvaise humeur waaye ñu ngi leen di wax ne bu ñu changer d'humeur pour si peu comme ni ñu koy waxee rek plaie d'argent n'est point mortel góomu xaalis moom reyul kenn Capricorne yi ñoom tey dinañ nekk un peu dans la lune euh, seeni ay xalaat yëpp nag dañ ko jëmale ci ki nga xamante ne euh, moom la ñu bëgg loolu mun nañ ko comprendre waaye tey ji suñu moytuwul itam euh, partenaire boobu dina leen def benn déclaration wala benn cadeau en vue verseau yi ñoom tey ñi ngi am envie isolé wu toog seen kër euh, noppalu euh, ndax soxla nañu dallu bu baax a baax su fekkee ne nag seen liggéey empêché na leen ko nañu xalaat rek euh, jël benn 10 minutes de temps en temps ci biir journée bi daal di ci mën a relaxé wu pare ak poisson yi ñoom nee nañ leen tey jii bu ñu xalaata euh, bu ñu ragal wax seen i ay idée euh, ndax rencontre yi ak contact yi nga xamante ne am nañ ko actuellement ay euh, rencontre ak contact yu favorable la seen i ay projet ñi ngi avancé ñoom bu baax a baax mun nañ ko gën a yokk nag il suffit juste que ñu waxtaan si ak seen i ay jegeñaale Pape Cheikh lii mooy horoscope tey yem jeudi avril 2016. merci Zeyna ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média baa ngi noonu mën ngeen ko amaat ci page Facebook. bu yeewu leen ça vous permettra ah, ngeen xam euh, seen ay signes nu ñu xëyeeg yéen tey ji 7